اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين المحتسبين المحسنين المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الجنة وخلقها الله تعالى للمؤمنين قبل أن يجدهم وأسكنهم إياها قبل أن يخلقهم وقسم الأرزاق قبل أن خلق الأخلاق ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأن يباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل وبعد أحييكم بتحية الإسلام تحية جميلة جمال أرواحكم حارة حرارة شوقي فأقول لكم أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي تلسبكتاتر LCS لاشين سنغاليز جنا بني سنتي على بوربي عز وجل جل تنتبي صلى الله عليه وسلم نونغي فاسين دلو سي اندندو اك يين سين ايميشن بي دي هدان هدان نينكو واخي موي نجوب fa tabaarakallaahu ajjuma ji jot diggante 22h ba 23h ngeen ànd ci ak seen mbokk El Hadj Cheikh Lamine Sène ci jotaay waxtaan wi macha allahu ñuy ñaanal mbokk yi tawat nuñ ko baaxoo di defee ñi ca kër ya ña tawat te tëddee ci hôpitaux yi ak képp koo xamante ni yaa ngi suuxale ak sa feebar ñu ngi lay ñaanal yàlla shifaa u macha allahu di ñaanal way dawlu yi. yal na yàlla dolli yërmande ci ñoom tabaarakallahu nuy masawu seeni bokk te di ñaan buur bi azza jal mu yàggal seeni ñaan ak seeni sarax ci suñuy loxo niki noonu bokk yi caabi féete ginnaaw du ñu leen bàyyi donc leen di ñaanal yàlla jàmm di ñaan yàlla ñoom ñooñu nekk ci prison yi ñu dimandikoo muñ mu mel ni prison fa tabaarakallahu euh, lu yéeme la ci jëmmi doomu aadama ndax ñàkk liberté fa tabaarakallahu gàllankoor la bu diis ci jëmmi doom aadama rawatina bu yor responsabilité njaboot ga liggéey ba yëngu-yëngu ya lépp dakk nga ne ci loxo loolu lu miti la kon képp ku caabi fiti ginnaaw xamal ni noo ngi lay bàyyi xel ndax dinañuy faral di wax ni bokk na ci li leen di dimbali di leen wéttali muy ay jataay yu ni mel muy waxtaan moo xam dañ koy seetaan seetaan ci télévision wala dañu koy déglu ci rajo kon noo ngi leen di bàyyi xel di ñaan buur bi azza wa jalla wéttali leen te xettali leen niki noonu kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa yi yàlla tekk réew mi ci seen loxo fa tabaarakallaahu euh, noo ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal yàlla jàmm euh, di ñaan buur bi azza wa jalla dolli jàmm ci réew mi euh, di wax rek ni képp ku nuy seetaan noo ngi lay noo am mbégte ci yow tabaarakallaahu di wax alhamdulilahi rabbil alamin wa nastahiqu alhamd di jagleel nuyo nak wa sopp nabi sallallahu alayhi wa sallam ñom ñooñu ñu yàlla bolel ab dir yag na sax sha allah ñuy andando ci ah tur di sopp nabi sallallahu alayhi wa sallam dañu len di jagleel nuyo di feddali kollëre ak ciofel suñu digganteeg ñoom sunu waxtan fa tabaarakallahu Euh, noo ngi ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, mu mel ni euh, dafa am lool dinañ ci cof tuuti rek balaa ñu ciy dugg mooy jamono jamono bu nekk ak la cee war a xew yàlla dafa def ca nañu ko waxee démb ci jataayu waxtaan yàlla moo jël ci nguuram jox jëmmi doomu aadama ba noppi gàll ci nattu tabaarakallaahu nattu ba yàlla di seet ndax kii mu teg nattu bi ci moom mooy jël ci nguuram jox ko ndax dina xam li mu ko jox moom yàlla lu mu doon ndax buur bi azza wa jalla ba mu jëlee jëmmi doomu aadama mu wutu ko ci kaw suuf ci la joxi doomu aadama responsabilité bu diis mu melni dafa yomb ci déglu qul illahuma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u mais yàlla mi mu sok mu jël nguur diko jox ki nga xamanteni koko la xol ni moko neex ci jamono bi mu ko soxla mu don nguur manam mu doon maanaam njiit yàlla bu yomon ci lolo rek mi xamni kon ku nek buur wala ku nek njit lula neex nga def way dedet kep ku yàlla tek ci yow nguur manam jite la nga don buur nga jite bamu waxe waxee qul illahuma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha'u bu ca yamone ñu ne kat kon ku nekk bur lu la neex def déedéet waaye boo seetloo ni wa tanzi'u al mulka mimman tasha'u moy yàlla bimu lay jox nguur gi daf la ko jox nga téye ba nopi mom yàlla mu téye ca téye bi ci yàlla téye moy moom moo dafa la dénkandi te dénkandi bobu moy sa su ko nexe mu ni ko roset te nak ak fu mu mën a mujj fu nekk moom dina ko ne rosette moom moo xam da koy jël ci sa dund moo xam bis day dikk nga wujj ko nguur ga nga ñàkk ko kon wa tanziul mulka mimman tashau yal na yàlla def ba bi ko yàlla jël ci yow mu rafet lool wax naa ko dafa am ñu fi mësoon nekk ay buur walla jiite fi ay réew li tax ab jullit di bàyyee xel ci ni moom yàlla yor léppam dina jox nit nguur jox ko kàttan jox ko doole jox ko man-man jox ko sañ-sañ mais ci sañ-sañu yàlla nag la ki mu fal di taxaw di ca agir mais dañuy dema dema dem ba jëmmi jamono wa tanziul mulka mimman tashaa'u bu yàlla yi nangu nguur ga lekk léeg nga gis façon nangu boo xamante ni kenn du ko rafetlu am na fi ñu jiite woon ay réew doon ay boroom kàttan ñu ragal leen sax faf kenn ñemewu leen waaye boo seetee na seen nguur jeexee da nga naan yàlla rek a mën yàllaay boroom nguur gi nga xamante ni moom du folliku bu mukk mu mel ni kon wa tanziul mulka mimman tashaa'u mu mën a am aussi wa tu'izzu man tashaa'u ci biir nguur gi yàlla mën a la caa kàttanal parce que dafa lay kàttanal sax nag mais bu la kàttanalee dafa am ak rafetal gu mu ca bëgg parce que ku doon buur wala ku jiite fokk nga am ñoo jiite fokk nga am sañ-sañ ci ñoom yàlla jox la benn pouvoir de décision ngay mën a agir à ta guise mais buur bi azza wa jalla neewu la lu la neex ngay def déedéet kon kattan boobu xam nga walillahi al izzatu wa li rasul wa lil muminin la shakka fihi alquran la yàlla ko wax yàlla mooy borom kattan yàlla mooy borom kattan te jël na kattan jox sayiduna muhammad waaye képp kuy way gëm xaqan te nga sa sa ngëm di dëgg ci nga gëm ni yàllaay dogal moom moom lépp yàlla dina la rof kattan yow it kon ci biir kattan boobule yàlla ngi lay wan ni bu ma la kattanalee it mën naa xëy toroxal la waaw ngir lan wa tudillu man tashaau ba tey lépp nag ca nguur ga rek qul illahuma malikal mulk tuutil mulka man tashaau wa tanziul mulka mi man tashaau wa tuizzu man tashaau waaye wa tudillu man tashaau la shakka fii te yooyu ay étape la yoo xam ni fa tabarakallahu saa boo amee ndombol tànk jiite aw nit na nga sóoraale doomu lee luma ta baye xel la ndax yàlla nit ñi la am mu melni kon yàlla ben taxaway bu mu ci def bu nek ma ngay seet doomu aadama ba natuba nan la koy gaddo nan la koy yeno ndax yàlla du yen ben doomu adama yen bo xamanteni bu la koy yene bu la koy yene sey om lemu nga daanu dedet la yukallifu allah nafsan illa wusaha la shakka fi illa wusaha laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat sadaqa al azim yàlla kumu mu yen lu mu lay mën a yen lu nekk bu dee nattu la bu dee bànneex la lu mu la mën a jox lu nekk rek attan nga ko moo ku ni wóoy rek da nga bàyyiwul sa xel ci ni yàllaay dogal ndax léeg-léeg bu mettee nga war a ni féppay metti kon ku jëkk yooxu da ngaa ragal waaye testé ci am am ak man man ak kattan ku cay wéy ku nekk xamal ni bisa ngi dikk xoolal euh, maanaam actualité oblige xoolal tey boo seetaanee réew mi li ci am parce que nag foog ñu bàyyi xel ñiy waxtaan ci diine ji dafay am yoo xamante ni sànni ca sa kàddu ci gis-gisu diineem islam dafay am solo ndax ñi gëmit dañuy xaar loolu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, moo gën ñëpp waaye dafa amoon benn politique bu mu daan doxale ba fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin moom moo doon régler problème de société yi te képp ku ko roy ci jikko yaay régler problème de société yi la shakka fii xoolal réew mi tey jii par exemple ndax al islaamu diinun wa dawla diine dafay ànd ak état mais état aussi bu tolloo ci benn instant boo xamante ni bii diine wat moo tax gis nga da baax mali kenn du moom saa bu masaan toog fii am lu fi bëgg yëngu mu yëkkati kàddoom yàlla dimbali ko kullama awqadu naaran lil xarbi atfaaha allahu daan na génn ci gémmiñam yàlla di ko dimbali lépp yi sedd yal na yàlla yokk leeram tey boo seetee réew mi Euh, Madame pouvoir ngi fi opposition ngi fi mais les yalla mën na wis ci mi bu la war nga def ko tek ko ci yoon kenn baña a kenn kenn baña xajamalal kenn la nga yor kenn ku ci nek li la nga ko te kenn ku ci nek la nga sa morom xamni li nga ni ndax it ku yeewu ci réew mi am na lu yàlla dénk am na lu mu la may am na foo mane am na loo mane kenn ku ci nekk nag ñu reconnaître la la la yàlla may kon lii moo mën a tax am réew am réew dox kenn bañ a xajamal dara ñu bañ a bundu kenn oppression bañ a am tabarkal la yàlla na wéy ci jàmm ak salaam ndax loolu moo xaj ci jën mi doomu aadama yi ndax bëgg nañu bu waxtu julli jotee ñu mën ko julli ci dal bëgg nañu bu màggal ñëwee ñu mën a màggal ci dal bëgg nañu bu Tiwaawan jotee ñu mën a dem Tiwaawan ci dal bëgg nañu bu Nimjaat jotee wala ñas ñaase ñaseen wala wala kunta lu ca xew lu nekk ñu def ko ci dal te loolu inchaa allahu taala la ma waxoon ni cheikh na cheikh Saad Bou ak ñeneen ñu dul moom ñaan nañ ko ci réew mi te yàlla dana ko def yaa rabbi yaa rabbi yaa mawla yaa amali saxir bi xayril wara rëxta salaatin kon kuy buur rëxta salaatin xamal ci nga bokk واحفظ لنا ابدا من كل ذي ضرر يلا دا فاي يلا دا فاي ار دا فاي يير دا فاي واتو ان شاء الله تعالى ريوم سنغال شي لو خامتيني لي تبارك الله لو بغ لور اسكان وي لا يلا كو باخ لا تي دا فا نيو باخي نيو باخ لو خامتيني ديملي نان ما شاء الله كون لولو يالنا وي تي لكو وارال موي روي غي غور يالا يو باخ روي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون لول دنج كي دون ساني ريك ديكو بيغالي تبارك الله parce que ñaar fi de ci réew mi ñaar te kuy dox ci nga bokk boo ca génnee sa bopp ci nga bokk ci nii wala ci nele mooy militant bee fi nekk ak taalibe bi jeex na militant bee fi nekk ak taalibe bi te taalibe bi sax day nekk militant militant bi nekk taalibe parce que am réew la te li koy doxal kenn ku ci nekk da war a jël sa loxo bo parce que توجور ما وخكو الترابط وتعاون لحل جميع المشكلات الاجتماعية واجب على أواتق جميع السكان لا شك فيه لب تخ أب سوسيتي جاك لب تخ أم ريو دخ لب تخ دي نك تجام دا في أم une certaine انتر entre les êtres humains c'est à انت dimmelente jappelente بو خامنتيني بي رفونت بو خامنتيني بي تجدال غير لان لحل جميع المشكلات الاجتماعية بس كليا توجور et il y aura toujours des problèmes de société à résoudre te jëmmi doomu aadama yi ñoo résoudre donc ci discorde mënuñu ci résoudre ay problème ci tojantey bopp mënuñu ci résoudre ay problème parce que am na ñoo xamante ni tey jii am nañu leneen lu tal lu dul ay bopp yu tal donc kon dafay nekk waajib ala awatiq jamii sukan mais loolu bu fekkente ni waajib la ci yow mi di jëmmi doomu aadama bi fay am lu koy taral moy day am lo xamanteni tu fais fi devant certaines situations moy bi raddi nazari an al ixtilafat diniyya aw al irqiyya aw al intimaat siyasiyya al mukhtalifa la shak fi da ngay bañu jël ay considérations comme frédéric wa illa jiddu nga jël ko tek ko fële wala appartenance ci walu parti politique nga teg ko fële seet li nga xamanteni moom la nit ñi parce que nit ñi ñooy am lu ñuy bëgg ci kaw société bi mais yàlla mooy wut njiit teg waaye nit ñi ñooy am lu ñuy bëgg te nit nag nit ñi li ñu bëgg lu nekk ci la leen di yàlla fekk wallahi suma wallahi yooyu dafa jarax et puis euh, euh, maanaam euh, amee lii kii day am lee kii ñàkk lii kii am lee kii am lii kii ñàkk lii mais yooyu nga xamante ni kenn ku ci nekk yaay yaay mottali sa sa morom yooyu kenn ku ci nekk daf ci war a bàyyi xel bu kenn defe ni yow rek yaa mën bu kenn defe ni yow rek yaa war a def bu kenn defe ni yow rek yaa yaay kii war a imposer nit ñi li nga xamante ni yàlla waxul loolu déedéet sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni na ko jox ko pouvoir yépp lu mu bëgg yàlla def mais yàlla def ko ni attention dama jël sama yërmande dugal ci yow yërmande ngay àndal yërmande ngay doxe yërmande ngay waxe parce que boo fi waxewul yërmande boo fi waxewul xol bu nooy soo fi waxa waxewul comprendre nit ñi soodee gajjee ka boddee ka matte ak rësëti yonent bi la yàlla waxal ni ko ko nit ñi dañuy dëddu bala fi donc dafa am benn façon booy doxal ak jëmmi doomu aadama yi mbir mi noonu la te nag euh, doole am na lu ci gën a rafet lu dul noot alal am na lu ci gën a rafet lu dul nay xam am na lu ci gën a rafet lu lu dul denc ko فتبارك الله بس بو ديمي تي حديث با يالا يامو واخ يونتي بي يامو واخ ييب تي ني دوم ادم يالا منكو ديملي تي بو تابي تي بامل ام يوكو فا فك ديكو ويتاليتي ليپ دي لير با كيرو بيس بي يالا ريغلي غا خامني كون خام خام امنا لوم ورا جاريغ علال امنا لوم ورا جاريغ دولي امنا لوم ورا جاريغ ما شاء الله لو متا باي احاديث مل نون بارنا با ينتبي وخيني على كل مسلم صدقه تلا بامو وخيني سبعون جلال عبد اجرهن وهو في قبره بعد موته باغا ليم يوي ييب غا خامني لولو دغ لا دونك كين كوتي نيك امنا لو منال سا موروم واي كين كوتي نيك بول خيبال سا موروم لاغا خامتيني موم لا يالا داف سي موم اي بي نك لي ولاف يخ نان ياغي خيب safara wala xeb sa xal wala farñent mutal sa day lu mata baye xel la ñu delu ci nak encore ci fañu tollu won muy baye fatimatu bint rasulillah sallallahu alayhi wasallam waye li werte wor moy yenente bi li jàngal moy xam lu dox ci suñu ak bur bi azza wa jalla ma ngi ci hijra haqqan mooy ci gadda gi ma ngi ci waxtan ko bari ay bagas waye li dama ko ci duggal gis nga addu'a muy ñaan wala wala khawf di ragal gi wala tawakkul muy wékk ci yàlla wala ma sha allah al istiaza ولا استغاز ولا استعانة مانام ديمبلك مسلوك ساكو خيتلي لب يالا موم مو دوخ سي ديغنتي بور بي عز وجل اك جامبي نيت كي نك بو لولو دوتول راغال باسكو دا فاي خامني يالا موم مو في نك كين جامبار ولا في يكاي واخ امول مي يالا ديملي كون دا جيل على استعانتك خامني دا ngay جانغ فاتحه الكتاب دي واخ اياك نعبد واياك نستعين nga gem ko nak tabarak boo demee ba toll ci rëx ba wala rëx ba yaa ngi dégg wala xushuur nga xam ne yooyu aussi jàmm bi yàlla la koy defal ci kanamu yàlla la ko mën a def toroxlu bi wàcce sa bopp doy dal sa bopp ci kanamu yàlla ñaan ko xam ni lii moom moo ko yeyoo mais tant que loolu amul rek jàmm du am te yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour rawale woon pas-pasam boobee nga xamante ni kalimatu la ilaha illa allah ndax bu buisa li yuwaxid allah la shakka fii yàlla daf ko yónni pour mu kennal bur bi azza wa jalla kon loolu problème yooyu mu jànkoonteeloon moo taxoon mu jóge Makka dem Madinatu Munawwara te wax nañu leen ba mu tolloo ca nit ña fa tak euh, fa takallama al qawm ba ko gaa yi waxee banu xasraj yi ñi nga xamante ni ba ñu dellusee ba mat 73 personnes dont deux femmes euh, dañ ko ne yaa rasulallah ñoo ngi ni jëlal ci ñun lu la neex jëlal ci sunu jëmm yi lu la neex ak lu neex yàlla yeneen tamit ne leen rek laa bëgg maa ngi jaayanteeg yéen ngeen fexe ba ni ngeen di aare seeni soxna ak seeni doom aare leen mu noonu rek bu ko defee rek li ma bëgg yàlla jàpp ci kon yonent bi dafa jóg tabaarakallaahu ngir liggéeyal dina islaam gaa ñu ànd ci waaye nag euh, tabaarakallaahu tate na terrain bi ba pare yónni na Mus'ab ibnu Umayr mu dem mu nekk muqriul madinatul munawwara yaani yasrib mu dem liggéey liggéey bu mucc ay waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booba gaañaa ngi màkk saaba yi ak ñi nga xamante ni bëgg nañ ko ànd ak moom mais yonent bi ci stratégie mi ngi waajal ma ngay seet fan la war a jëm mais jotagul ndigal waaye bi mu jotee ndigal li nag muy iznu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndigal li nga xam ne daf ko jël moom li ashaabihi pour saabaam ya ci lan bil hijrati ci ila al madina jëm madinatu munawwara fofu la mbir mi neex ndax qali ibn sa'd في طبقاته روي عن عائشة رضي الله عنها من لما صدر السبعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه نانا بي ينتبه دمي ام 70 بيرسون اك لو تيغي نانا بوبا نك كوماسينا خيل مي دي دال te nag jaasi génnul mbar bant dammul avec beaucoup de tact et de de spontanéité et de stratégie mom la yonent bi liggéeyee tate terrain bi yonent bi stratégie la won gis nga li ñu jàng ci mom du yonent bi rafetoon na rek tabé woon na mais dafa am fumu daan jaar ak yu mu daan def ba nimu def parce que budi al islam ghaliban sa ghaliban ghariban tuuba lil ghuraba la shak fihi mais njàngat bi mooy yonent bi waa moom fan la jaar bu diinil islam taxaw yonent bi yan jafe-jafe la jànkoonteeloon yonent bi ñen ñu ko doon dimbali ñen la doon àndal kan mu jëkk tabbi madinatu munawwara macha allah bi mu demee madinatu munawwara moom avant muy dem ñan ñoo ko jiitu nañ nan la ñu duggee biir madina te lu am solo nan la ñu duggee biir madinatu munawwara lu daw yaram parce que am na ci ñoo xam ni moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko bi ko bi mu bi mu joxee ndigal ba gaa gaañi war a dem nañu démé dafa daw yaram parce que bo ñaké katan ci kanamu ñoo xamanteni ni dañoo am alal am doole te bëgguñu la bëgguñu li ngay woté bëgguñu ñi nga àndal fofu nak ndimbalu yàlla fay am motax tax bi mu tolloo ci am 73 personnes 70 personnes et quelques xel ma dafa dal mu melni kon loolu yàlla dimbali nako ko ndax faqad jaala allah lahu manatan wa qawman ahla harb wa udda wa najda sayiduna muhammad demoon na ba am aw nit yu dëgër doon ñu ñu doon jàmbaar ci xare waaye ba tey jaar si génnul mbar bant damul ñu doon ñoo xamante ni amoon nañu gànnaay waaye amoon nañu aussi ndimbal loo xamante ni fa tabarakallah sama xaaliqin yàllaa leen ko defal parce que yàlla mooy gis nga euh, euh, yàlla أه، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم صدق الله العظيم يا لكم دملي كن دولا دان كبر اللي دان وينك كنن كنك parallel ما أوصيك يا دملي ومن يهين الله فما له من مكرم صدق الله العظيم كي الله ترى خالد دو تد تبوم مك كن فخي سكون غير مبود عز وجل فرام دملي lu mat a bàyyi xel la sayyiduna muhammad yàlla def ko gërëm dimbali ko gërëm ñi mu àndal dimbali leen fa tabaarakallah ma ne moo tax yàlla du ne waaw ni déeg te ñi daan ànd ak sayyiduna muhammad ba yàlla gërëm leen dig leen la moo leen dig moo tax kuy waxati ci saaba yi na nga ci bàyyi xel maanaam bul seet ñooy sempeeg ñooy dugal ak ñooy lefin parce que xam ña bokkoon ca ña yàlla gërëm dafay am solo xamit lutax yàlla gëral même da fay am solo kon bu ñu wëlbatikoo donte kër gu yëngu sax ci biir ba yëngu-yëngu am ca bokay jotali nang ko jotali ak beaucoup de stratégie pour baña brouiller conscience nit ñi ci walu diine ndax yàlla du weddi bopam fa tabaraka subhanahu wa xaaliqin mais bi lolu amé wa jaalal yani wa jaala al balaau yashtaddu ala al muslimin manam mbir mi taroon na ci julit yi lol ben moment bo xamanteni bi bii booba yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna aw nit te wa Makka gis nañu ni yenenti bi tabarakallah amna lu muy wacc parce que demoon nañu ba am lo xamanteni presque xaw nañ ko yek mu melni tartar yoyu nga xamanteni tuké won na ci mushrikuna yi ndax wa jaala al bala'u yashtaddu ala al muslimina min al mushrikina lima yaalamuuna min al xuruj bi ñu xamee ni sayiduna Muhammad ma ngay joxe ndigal pour gars yi génn seen mer na gën a tar gaa yi de war nañoo génn waaye daal ñu ni ponkal mi moom bootul moom du fi jaar du génn kan sayiduna Muhammad ak ay dem <laughs> ak ay dem waaye nag xam nga du jëkk daw yonent bi du daw du tiit du rët du raf ku dal la ku teey la toutes les qualités toutes les qualités du ma wax bonne qualité parce que qualité rek doy na tout les qualités lui reviennent moom صلى الله عليه وسلم دو درابي دو جاق دو جاخلي باسكو لي لاكاي واخ موي غنون نا في نيانغ دي مو ديمي طائف با ام اي جافي جافي مو جاكارلو بور بي عز وجل تي نيان غوريغا اللهم اني اشكو ضعف قوتي وحله حيلتي وقله حيلتي وهواني على الناس وانت رب المستضعفين لول دا فا داو بابا xëy na bu doon keneen dina dina dina dina xaw a jànnaxe waaye Moustapha musta jànnaxe la mu doon seet digganteem ak buur bi azza wa jalla mooy est-ce que deful dara lu ko yàlla war a mere ba situation bi tee ngeen ni ay seetlu rek parce que mooy jàngale looloo loon ca boobe laata bi mu naan buur bi azza wa jalla in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali la shakka yow bu dul ma mere rek yow sama borom Moustapha wax sama turandoo ni yàlla kon lu la soob teg ma lu neex def ma béggee naa ko yàlla ni ko dama la don testé at mi nga lolu mo war tax al isra wal miraj dernier test dernier examen ci sayyiduna muhammad pour mu apt wu bi azza wa jalla moy bu mu joge taif lu mu ta bàyyi xel yoyu amna yenen wetch di ci dess euh benen waxtan la dama ko ci don duggee bayna qawsaini waye fi mushrikuna yi amee métit fa tabarakallahu sunu khaliqin amee xol bu bon ngeen baal ma ci kàddu gi mere waa kër yonent bi ngir yëg nañu ne parce que mais yow nit kay boo ko buggulee bu demee ba war a tabaarakallah sunu xaaliqin wut ay pexem kay <laughs> bul ni kii pexe yi man dama ci maanaam yàgg na fi nag nit koo xamante ni kii macha allahu yàlla da koy dimbali ah xam nga gàddaay moom dafa baax waaye gii gàddaay moom gars yi dañ ci bëggoon xëpp suuf mais yàlla mooy bañ. وجان الا تنصروا فقد نصره الله الله اكبر يالا ميوا مكه داغين خمول كي والله بسمو لين كو ديملي وول نين خامي مان امنا ديمبل سي مام تي ديملي لولا ولا باسكو موتاخ ديسان ليك لي ني نلا اي سانغام مكه لا واتي اي سانغام مدينه المنوره لا واتي واي غاني ماغي لاكتي ماغي لاكتي سما خا خبري وول الا تنصروه فقد نصره الله الى اخر الايه فان لا واتي لوما تباي خيل باسكو Lolo, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions diggante bi Sayyiduna Muhammad di djégué Makka di dem Madinatu Munawwara gañi bañ Yalla ni may nangu lu lu daw yaram la kon mu xat lool ndax wa dayiqu ala ashabihi wa ta'abbasu bihim ونالوا ما لم يكونوا ينالوا من الشتم ولا ذا نتي ون ما شاء الله يخبر مكة المكرم يفري سنال لين مشركون يسنال لين وخبونا بنا بنا مستدق دق منكو نجير خطل وكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوفنك كلا سابا يخط لول خط خط خط لول ينتبه مصنن الله أكبر وينك بوربي عز وجل léeg-léeg mu ni rukku ndey sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama turandoo te booba yoonu jibril du ci ne lu mat a bàyyi xel laa lay wax loolu xam naa ni ñu ngi koy jéggalu ci borom xam-xam yi waaye firnde dana ca am ca kanam ndax fa shaka dalika asxaabu rasul sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag wastaazanuuhu fi lhijrati fa qaal moom sayyiduna muhammad qad uxbirtu allahu akbar cey sama turandoo ndaysan dara jek jek bu ne dënn ba mu yàgg sigg yëngal ngeñam lolu rek lu mu wax xar-xaru doj lay doon yàlla bëgg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam wax gis nga jibril gaay dañu xamul ba legi waye sayyiduna muhammad moy patron wu jibril xam nga bu bi azza wa jalla waxna allamahu shadidul quwa jibril dana jàngal rasulillahi moy dana wàcce aya alquran ci mom waye sallallahu alayhi wasallam moy patron wu jibril du moromam moko ko mag moo gën moko fi jëk ay at yu bare kenn xamul kañ la fi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam nek ndax ba leer ga di jolli yàgg ba cheikh sidi alxaaji malik si wax ni wa innahu id arada laahu nashatana abana min nuurihi nuur damar ala la kenn xamul kañ la amul dat kon buur bi azza wa jalla ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam boo jàngee faqaaba qawsin yow adna nga xamni ni ba yàgg na noo taqaloo yàgg na yàlla ko wàcce rek def ko jëmmi doomu adama ngir ñu wara mëna mën a attan li indi jakarlok mom di wax ak mom waye du ñun ñun duñu mom sallallahu alayhi wasallam ndaysan ndeysaan bi saaba yi ñaxto bëgg jaxlé manam xamuñ fuñu jëm yonent bi ne yàlla wax na ma wax naa ak man jot naa ndigal ukhbirtu bi dari hijratikum wa hiya yasrib xamal nañ ma ko xabal bur bi azza wa jalla wax na ma ko wax bur bi azza wa jalla xamé xamales nañu ma xamalees nañu ma waxees nañu ma kan la buur bi azza wa jalla lan la ma xamal ni kat yéen am ngeen dëkk boo xamante ni bii war ngeen gàddaay jëm fa gaa yi ni ko fan la mu ne yasrib mooy madinatul munawwara allahu akbar ku koy bàyyi fatimatu bintu rasulillah sallallahu alayhi wasallam kon mbokk yi euh, pour di leen fàttali rek ni ñi bëgg di ànd ak ñun ci jotaayu waxtaan bi mën nañu woote ci 88 628 71 71 sopp na bi Moussa ngi fii fa tabarakallahu di ànd ak ñun ci régie régie bi waaye sama doom Pape Samba mu ngi nii jàkkaarloog man fa tabarakallahu ñu di leen sant bu baax ci liggéey bi 88 628 71 71 di béggee nag sopp na bi yëpp di béggee sopp na bi yëpp ak képp kuy xamante ni kii ak foo doone taalibe ak kuy sa sëriñ ndax ñëpp a ngi daje ci Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di béggee nag euh, taalibi Cheikh Ahmad Bamba Mbàkke yi ak waa kër Cheikh Ahmad Bamba yi waa kër Cheikh Sidil Hadji Malick ak seen i taalibi waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu xeet ak seen i taalibi waa kër Baye Niass ak seen i taalibi ñoom ñëpp waa kër Cheikh bu Kunta bàyyiwuñu kenn ñëpp ay jullit lañu Cheikh Ahmad Bamba mi ma wax ci njalbeen gi dafa fekk ñu dëkkmal ñu dëkkmal màggalu Tuubaa te dinañ ci ñu wax ci loo xam ni macha allah dinañu xam ni. Euh, bàyyi sëriñ Fallou moomee la taxoon mu dem géej liggéeyi jullit bu nekk war nga koo béggee rawatina bu yeewoo Sénégal nag waaw jullit bu ne war nga koo béggee rawatina bu yeewoo Sénégal boo seetee bi muy dem di màggali ak bi mu dellu see léeg-léeg nit ñu ne màggal du xam sax kañ la ñuy màggal dem bi wala dikk gi ndekete moom dem balay màggal ndax yëg na li ma ngay loolu mooy ndamam dem bi mooy ndamam mooy ndamal islaam looloo waral wa في الغرب ثم حق من الغرب شمسا نفعة وانتشارا بشر غنشي صاد وقت موم مو دالو مني جوابا يدلكم على سبقكم فالفرض ليس يبارا Cheikh na Cheikh bu bokkul ci group bi rawantewul Serigne Bamba témoigné loolu waaye Serigne Touba témoignage bi ko Cheikh na Cheikh bu témoigné ci dem gi moom rek moo ko wax nag macha allah parce que xam na li bàyyi basak baara wuti ji mooy dem liggéeyal Seyduna Muhammad mooy liggéeyal diinal islam yeesal sunna fexe ba baatu laa ilaha illallah samp jàkk samp diinal islaam samp te dara du yëngu ba pare dem dikk jéggal noon yi kon fañ yonente bi jaaroon jaar na fa balak maram Isaac Sadio fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiin xamalees nañ ma ni kat gàddaay jot na gaa yi ni tekk mu ne leen waaye nag yasrib ngeen jëm fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiin mu mel ni euh, li daw yaram xaqan mooy façon génn bi ñu génn 88 628 71 71 mu mel ni génn bi ñu génn nañu génne moo daw yaram nañu génnee moo metti nañu génnee moo yërëmtalu nañu génne mooy génnuk ànd ak pas-pas parce que lu ne mënoon nañ leen cee fekk te boo seetloo ñi desoon makkatal mukarram yeneen bi bàyyi na gaa yi jiitu ko gaa yi jiitu nañ ko de dinaa la wax ñan ñoo jëkk dugg gaa yi jiitu nañ ko waaye moom mustafa moo desoon moom ak Ababacar Sadiq ak Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu omar ibn khattab sax moo ko jëkk dem waaye demu omar nag moom dafa dafa yéeme moom waaw omar moom kenn xamul lu mu doon omar jàmbar la yoo xam islam mënu ko woon a tabarakallah mu melni, ni allo mu melni, demam dafa daw yaram waaye balaa ñu ci yegsi ndeysaan al qawm loolu arab bu ko waxee jaala boobu doo ko firee def fa jaala al qawmu yatajahazuna bakka sa baram benn wa yatawaafaquuna ñaar wa yatawaasuuna ñett wa yaxrujuuna ñeent wa yoxfuuna dalika juróom façon génn bi moo taw yaram ci waa kër sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que toll woon nañ foo xamante ni il fallait que ñu génn makkatal mukarram te génn gi it moo tax lu waay di def te tegu ko ci ndigal rek tegu ko fenn moo tax ndigal soo mënee defal soo mënul jéem a def ndigal jàmm rek moo ciy tukkee te yonent bi lu mu def ci ndigalal yàlla la koy def yonent bi jàngale gi muy jàngale ci ndigalal yàlla la woote bi ci ndigalal yàlla la sharia bi muy indi ci ndigalal yàlla la lu mu def ci ndigal la ko def jëlul benn pouvoir taxaw ni lii man kenn maa ko war def déedéet da koy teg ci ndigal buur bi azza wa kon ndeysaan ñu takk ñu takk ndeysaan mu daw yaram lool war a dëgmal madinatu munawwara mais takk bi ñu takk di demit façon bi dafa daw yaram ndax ndeysaan ñoo ngay yoot def ay taxaw tabarkalla macha allah bokk ca ndeysaan xolal di dénkante ndànk déyante dénkante boo xamante ni dafa yow daw yaram déyante bu daw yaram li yëpp rawale pas-pas fa tabaarakallah ab dëkk nag moo këre yam moo tabaarakallahu néega yam boo demee ba xajatoo ca wala xajalatuñu la ca gàddaay dafay war ci yow fa tabaarakallah sama xaaliqin waaye nag na la wóor ni yàlla moo ni suuf si yaatu na lool nee dox leen ngeen xool dem leen ngeen seet bu fii bañee rek fee dana nangu fa tabaat loolu farata la fa tabaaraka laa génn gi ñuy génn ndeysaan dañu ko doon parce que nëbbu sa noon ba rawale sa pas-pas la du ragal fa tabaaraka laa sunu mu mel ni kon fa kaana awwalu man qadama al madina dama lay wax ki jëkk dugg madinatul munawwara ki fa jëkk dugg ci waa kër Seydina Muhammad bi gàddaay gi jotee bi mu jotee ndigal pour saaba yi gàddaay 88 628 71 71 ñun ànd ci waxtaan wi macha allah di leen bëggal baax di kontaan ci Moussa Sopp Nabi 88 628 71 71. gaay nak la leeg ñu ni woté nañu dugg waaye xam bousculade bi ci serveur bi moy def nonu waye bo teeyee rek di nga dugg ci 88 628 71 71. mu mel ni kon ki jëk dugg min ashaabihi sallallahu alayhi wa sallam Abu Salamata lañ koy wax Ibnu Abdil Asad kooku moo jëkk dugg ci ñi nga xamanteni yete yatajahazuuna wa yatawaafaquuna ويتواصون ما شاء الله ويخرجون ويخفون ذلك ني كجك تا بوبو استراتيجي بدغو ابو سلامه لا مومو جك دغو ندسان عبد الاسد فتبارك الله احسن الخالقين وي بامو دغو دون موم كين عامر فتبارك الله احسن الخالقين سخدام سني وخ حشمه عندنا فتبارك الله احسن الخالقين وي تي رك mu doon dugg boo xamante ni bii dañ doon def ndànk-ndànk dind boog di def stratégique tabaaraka la sunu xaaliqiin di seet fu ñuy jaarak ak nañuy def ak parce que di lal ay plan yu kenn xamul te yooyu yëpp ci njàngaleem Seyduna Muhammad la stratégie la rasulillahi waaye nag ndeysaan ci tënk rek eh, boo gisee ñu ne eh, qaama ashaabu rasul sallallahu alayhi wa ndeysaan eh, فنزلوا على الانصار يواتي اوا انصار فتبارك الله سمو خالقين في دورهم <laughs> ما شاء الله كوكو بين جمعولا وايي نك غاي دالال لين فاواهم يمونيو تيا ديمبالي لين تك تيا وايي دالال لين ديفال لين تي تنك ياك نين ديغ خصاص يوي نيمو ديبي مي لي دوي وار موي امول كين كو خامتيني كي ولم يهاجر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متخفيا لا شك فيه أمول كن كدف هجرة جن كي واكر ينتبي لدول دنغا نبو لدول دنغا نبو نبو نبو وينك غير عمر بن غير عمر بن الخطاب بومدس عمر بن الخطاب جامبار جوي خامتيني موم ام تانك لا موم بومو خامي ني يالا دي دين الاسلام ويدق ba mu xamee ni kàddu yàlla mooy féete kaw beneen kàddu bu ñëw ci suuf ngay jaar moom moom bokkul ca ña nga xamante ni dañu doon dox ndànk kënd boo ko làqu deful loolu de dafu ko de dafa ko de dafu ko de ndax Ali ibn Abi Talib moo ko nettali mu ne euh, moom Omar ibn Khattab lama hamma bil hijra ba mu demee ba namm pour génn moom ndeysaan kat doy waar dafa ñeme woon gànnaay jël na boole ko fitt mooy arc ak yi ànd ak moom flèche yi jël na yat jël na jaasi takk ko ba dëgër wow koŋ ba noppi dëgmal kaaba gii tey tey tey tey tey te moment bi mu fa doon dem noonu noonu diinil islaam yaa nga fa waaye mais Omar moo neexul dab Omar dafa doy waar am na doole ñeme na te ku mu tampalool nga xam ne góor dal na ci sa kaw ndax bi nga xamante ni bii fa tabarakallah sunu xaaliqin def na loolu dafa ñëw wër kaaba gi juróom-ñaari yoon arab yi daf may tàddeel sax mu ci nar a nekk di ko wax daf may tàddeel wër na kaaba gi juróom-ñaari yoon ñoo ngi jégalu ci téléspectateur yi bëgg dugg mais mën nañu insister rek ci 88 628 71 71 ngeen ànd ak seen mbokk El Hadj Cheikh Lamine Sène ci seen émission Houdan ñuy waxtaanee Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam 88 628 71 71 ñu ngi jégalu ci ñiy jéem te dugguñu fa tabaarakallaahu mu mel ni mm, sopp na ba ngi toog di leen contrôler incha allahu taala ñi nga xamante ni bëgguñu woon diineel islam bëgguñu Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam bëgguñu lu jëm ci wàllu woote kennal yàlla. di nag ay notable yoo xamante ni fi te dama la wax ni dañuy daan toog ca kaaba ga fa mu nekk daan fa def lu leen neex mais omar bi mu dikkee moom dafa dafa dafa dafa wër dafa wër kaaba gi juróom-ñaari yoon taxaw maqaama julli ñaari rakkam ba noppi jàkkaarloo gaañi ak a ne leen maa ngi nii nëbbuwuma allo salaamaaleykum ñoo ngi jégalu salaamaaleykum ñoo ngi jégalu allo allo waaw kooku allo. allo waaw maa ngi dégg. kooku. na nga def. sant yàlla kookan la. man la soxna Adama. ah. allo. waaw maa ngi dégg yow la Adama. waaw soxna mi na Adama Mbaye. Adama Mbaye géej kay Mbaye Mbaye Mbaye Mbaye Mbaye. na Adama mbay bu Baye Djili Mbaye. Baagara jërëjëf. Mbaye Mbaye Mbaye. ñu ngi rafetlu émission bi neex na trop. jërëjëf mbay jërëjëf mbay yow jërëjëf jërëjëf Mbaye. émission bi neex na trop. jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye. waaw léegi ni man soppe na bi man naa première. waaw yaay première incha allah kon ba le 30. waaw kay incha allahu taala nga ñëw fekkee conférence ba dégg inshallah taala mbay 88 628 ah sopp 88 628 71 71 Masha allah pour ku bëgg participer euh Moussa Koulibaly 71 71 euh, Moussa Koulibaly sopp bi contrôler lolu 88 628 71 71 ñu ngi bi ci yoon wi euh di ci farlu di àndandoog ñun léeg-léeg ñu ni dugub bi dafa jafe mais bu ñu bousculer ci seen wet bi rek ci lay jafe tabarkal la tabarkalla tabarkalla euh, maanaam day mel ni espèce bu xante rek waaye du doon dara ndax ku war a dugg rek di nga dugg incha allahu taala di kontaan ci waa Géejawaay yooyu lee euh, waa sopp na bi yooyu fa nekk fa tabarakallahu di leen sant di leen gërëm te di leen wax rek ni nañu waaj incha allahu taala le dimanche 30 novembre ñu ànd ak LCS. def suñu conférence restructurer suñu association macha allah ca centre culturel Blaise Diagne macha allah euh, à 16h mu mel ni kon tabaarakallahu euh, loolu ñoo ngi ciy jiital nag euh, Jibi Fall suñu kilifa suñu directeur ñoom Mara macha allah Tidiane tabaarakallahu Eli Faye Aminta Fall macha allah Ngone ñoom ñëpp. Ah, tax ma boobaa sama doom mooy ànd ak man Pape Samba ñëw ci caméra bi comme ni mu ko defee woon daaw ah Moussa Koulibaly sopp na bi sallallahu alayhi ànd ak ñun ci boobu la liggéey ndax sopp na bi moom defe naa liggéey bi ñëpp la mas naa wax benn waay di ko eh, eh, ñëpp ay sopp ñëpp ñëpp ay nabiyen la ju xanaa kay nangu ko bañ ko moo fi des ni fànn waaye ñëpp ay nabiyen lañ parce que ki ñuy bind ki tax ñu bind la ci leeram ñu bind ci lépp ko kay yow ca moom nga bokk xanaa kay yaay bañ buñ jëlee sa jëmm teg ko sax mim adam de la mim del ngay Muhammad yow kay yaay bañ rek waaye yow nga xam ne yow yow saf nga ci yonent bi tàkk te taq nga ci bu baax te bu budul koo teg moom doo nekk macha allah 88 628 71 71 seen émission Hudan salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum waaw ñu ngi jégalu kooku rëcc na mu mel ni. Euh, amul kenn koo xamante ni kii rek def nga ni Omar ndax moom fit la demee ndax nee na leen yéen de li may def yi maa ngi nii di leen fas yéene wan gannaaw jaar ci ginnaaw xur wii jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñooy ñi bañ ne leen ku ci ne am na yaay ci yéen ku ci ne am na soxna ku ci ne am na njaboot waaye ku bëgg sa yaay ñàkk doom wala nga bëgg sa jabar tenj la mbaa bëgg sa njaboot doon jirim fekk ma ci ginnaaw xur wi maa ngi dem waaye boo ko xoolee shaki silaahin batalan mujarrabu la shakk fii mel ni la marhub waxoon da ko dal keroog bari gànnaay lool ba noppi nag rag lu teg ci rag lu teg ci kooku kooku ki koy dab moo amul kenn dabu ko moom noonu la def moom jël yoonam àndul kenn nëbbuwul mais gudul budul moom rek amul kenn koo xamante ni kii génn nga jiitu yeneent bi ci yoonu yasrib teddu da ngaa ànd ak gaañ yi rek yatajahhazuna ànd ak gaañ yi rek fa tabarakallah sunu xaaliqin nëbbu rek fa tabarakallah sunu xaaliqin def ran teey dal ak stratégie boobu def Umar ibn Xattaab kooku waaye nag euh, moom bi mu dikkee ni ko gaay waykat ba waxee ca la toj taax ya bilaal nodd ca kaw toj tax ya tax mooy gambo yooyu nga xamante ni dañ ci daan dëpp seen gémmiñ di nodd te di ko nëbb Omar toj tax ya bilaa nodd ca kaw parce que nag kalimatullahi hiya al-ulya la shakka fii kàddug yàlla ca kaw la war a jóg ñu nodd allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ca kaw parce que Omar macha allah El Hadj Malick tagg na ko Serigne Bamba tagg na ko. Cheikh na Cheikh Sadbu tagg na ko ñëpp tagg nañ ko 88 628 71 71 88 628 71 71 pour ñu bëgg participer waa sopp na bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di nuyu euh, tey nag maa ngi jëkkee nag ci sama doom ndey càll seen tabaarakallaahu tey moom moom laa ciy tudd rek mu yóbbuwaale ay sëram ak frère am euh, borom këram Ousmane Diop di nuyu Assane Diop ak soxnaam Wuli Diop di nuyu sama chéri bu ndaw Ndey Faatu Euh, tabaarakallaahu Khadija nga leen di ziar di nuyu nag soxna Yaasin Seck ak njabootam yëpp tabaarakallaahu suñu xaritu tàggkatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wax Mamadou Samb ci ñaari tali di rakk ci bàcc Samb al oustaz al fadila bàcc Samb suñu xarit boroom xam-xam rakkam boobu di Mamadou Samb moo ñàkk soxnaam bu ñuy wax a Jéey denc nañ ko tabaarakallaahu parce que yéen ñaanal suba mom may mëna jé fofu ci ñaari tali ñukoy jalé borom kër Mamadou sambu takatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam diko jalé jaale bàcc sambu di nuy nak sunu xarit ak oustaz al Fadila Ibrahima fay sunu soppe sunu xarit ma sha allah di wax rek ni wa jëppal ak wa Castor wa Derklé dolen mëna lim ba ca yoof suñuy wëllëreeg suñuy mag ak suñu soppeek ñi ñu xalelal loolu ñep nga xam ni rek rendez-vous bi le 30 novembre la inshallah ci conférence ba inshallah taala ñu di leen sant di leen gërëm bu baaxa baaxa baax di wax rek ni euh dem bobu lay dafa xawa yeme ndax euh wa hakaza تتابع المسلمون في الهجرة إلى المدينة حتى لم يبقى بمكة منهم إلا رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أو معذب مبحوث لا شك فيه اي محبوس ومريض او ضعيف عن الخروج ني نيو فدسون أه، بي غاني генي دم عمر генي دم مصطفى سمتروندو مو دسون مكه اك ابو بكر الصديق اك علي لي تخ علي دينا لير غاني دنجكاي وقتاني مي أسي دتاي داف ام سولو السلام عليكم 88 628 71 71 ñoo ngi jégalu de ñoo ngi jégalu de rëcc bi noonu ñoo koy jégalu bu baax ndeysaan lu daw yaram am na ñoo xam ni dañ leen daan noot tëj leen sax tënk leen fi barab jéng leen ngir pas-pas bu ñu am ci kenn buur bi azza wa jalla waaye lu ñu leen gën a sonal sonal rek ñu ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekk ci loxo di wax loolu ñu leen di mbugal ñoo ñoo fa desoon demuñu woon wala màggat ñi amul woon kattan walla ña feebaroon ba mëna mënaluñ seen bopp dara ñoom ñoo desoon mënuñu woon dem waaye am na ñoo xamante ni dañ leen daan mbugal di leen caw di leen duma di leen takk di leen jëng waaye terewul fu ñu mës a gën a tare ci seen kaw rek ñu gën a mën a feddali seen gëm ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa gëm buur bi azza wa jalla kennal ko rasulillahi salaa sallam kooku bàyyi fatimatu bintu rasulillahi euh, maanaam dafa dafa dafa dafa dafa yéeme ay mbir mais génnam gi mu génn mag dem madinatu munawara euh, dafa nekk njàngat ci jëmmi doomu aadama ci dundam ci kaw société bi mooy su fekkente ni yaa ngi dundandi ci kaw suuf tabaarakallahu am problème ci barab wala nga dem ba xat fa xajatoo fa wala ñu xatal la fa wala bëggatuñu la fa mën nga maslaa de waaye boo yàggee ba mu dem ba tar ba nga xam ne lii dëgg la booy boo nga yoru say kaake te ma seet foo jëm 88 628 71 71 waaye nag euh, ñoo ngi nii bu baax suñu xarit euh, Pape Ali Diop mu nuyul ma sunu maas yëpp mag ñi Aliou Badji fa tabaarakallaahu vie bari nañu nuyu waa Sicap yëpp fa tabarakallah di suñu ay soppee di suñu àndandoo ca xaleel baneel Adja Khady Ndiaye macha allah ñuy nuyu suñu yaay Adja Oumy Guèye woote baa ngi noonu lay soxna Yaama Ndiaye tabarakallah sunu xaaliqiin mbir maa ngi noonu lay ñoo ngi jéggalu nag ci téléphone bi parce que technicien baa ngi ñuy wax ni léeg-léeg gars dañuy buuxante boo gisee loolu rek buuxante bi moo ëpp muy dagg di dagg di dagg ñuy jéggalu ñi buuxante def attente te dugguñu ndax serveur la ñu ngi koy jégalu bu baax a baax a baax euh, di nuyu euh, sunu soppe sunu xarit Baye Camara di gérer ay soxnaam fa tabarakallah di nuyu maam jaara sama bos sëñ xaadim sëñ Muntaqa macha allah di nuyu ahlu bayti rasul soxna Maqbula euh, di nuyu borom këram Cheikh Al Hadrami ñu koy wax Baxayda ci Medina macha allah di nuyu sama jarbaat Fat Diagne tabarakallah sunu xarit ak ñoom ñëpp. bàyyiwuñu kenn euh, di nuyu tamit sama kenn ci man sama tata macha allah wala jigéen ci man mais tata bi lay gën a jàpp sax muy Adja Kumba Wali Diagne Adja Daane Mbaye fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp mënu ma leen bañ a nuyu dañu baax doo mën a boole ñëpp nag waaye nga ziyaare leen rek euh, di nuyu euh, tabaarakallaahu di jaale encore Penda Mbab ba Njaay doomam des Fatou d'aller aussi aussi kenn di sunu xarit di soppé euh di kilifa ci ñun muy monsieur Papa Diop mustapha Diop way Papa Diop président Papa Diop di président convergence démocratique bokk gis-gis mok ay ak tout son staff di nuyu Taye Samb ak ñi and ak mom ñep di def mention spéciale madame Diop. parce que loo gis nag day am jàppal diw muy sunu wëlëre di soxna Ndeye Marie Ndiaye Ndeye Marie Diallo fa tabaarakallaahu di ko ziyaare bu baax di ziyaare njabootam yëpp euh, ma wax keroog ñaañe Touré maa ngi koy béggee keroog ci dëj bi ma ni ko lii mooy kóllëre ci dëju Penda Mbaba Ndiaye ma gis ko fa dama koy tooñ naan ko sa bële bii nga sol dey xam naa ni gars yi waroon nañu balaa ñu sol bu ñu seet seeti la fa tabaarakallaahu euh, di ko tooñ noonu ndax suñu jigéen la euh, di béggee ñëpp rek Euh, di bëggee euh, waa Liberté 4 bàyyiwuñu kenn waa Jumaa ja di ko commencé ci El Hadj Omar Diallo tabaarakallaahu ndey taal bu Serigne Fallou Serigne Babacar Samb Cheikh si Ousmane Diop doo mën a lim ñëpp Abdourahmane Sarr fa tabaarakallaahu di nuyu sama xarit sama soppe góor yàlla jaw muy góor a jaw taxaw taxawaayu ful ak fayda ca koñ ba ba dara loo xamante ni bu fa naree wàcc doon lu yàq suñuy doom wala suñuy sët mu gar ci tànkam góor yàlla jaw ci Sicap Liberté 3 maa ngi lay nuyu di nuyu sa soxna Abi Thiam ak Kumba Jaw sopp na bi di ziyaare nag Ibrahima Cissé macha allah imam Pape Samba di nuyu nag suñu imam bu mag di El Hadj Mouhamed Lamine Sané atal allahu baqaahu baynana ndax am nañu am na njariñ ci ñun te yàlla nee na wa ama ma yanfauna sa yamkus fil ard njariñ loolee mu am ci jëmmi jaam ñi yàlla na ci yàlla taxaw ba yàggal ko fi moom imam Mouhamed Lamine Sané ak ña fa nekk ñëpp Euh, bu ma nuyoo Pape Cheikh Samb imam dina yóbbaale ñoom Salih xam nga Makki Mouhamed bi tey tabaarakallah tabaarakallah Ablaye Seen ñoom ñëpp tabaarakallah di ñaanal Njaay laal yàlla ko yàlla may tawfiq euh, sama waa kër ziar naa ñëpp Pape sama mag ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa yaay soxna Aminta di ku baax di sama jigéen Adja Jatu Njaay ñoom lay mujjee sopp na bi waaye tey dama waxoon nuyoo bi dama koy teg ci loxo xari xari caw taalibe la te léegi nee na ma ci ndigal laay wéy ah, kon kontaan ngoone sopp na bi moom kenn du moom macha allah di nuyu maam Fatou mbay aji maam faatu mbay sopp na bi aja eh, tabarakallahu aram ngiraan ah, di leen nuyu ñoom ñëpp aji mbay mbaay eh, di nuyu tabarkalla Bakar Cuun ak it nag mbiriña ñoom ñëpp sopp na bi lañu tabarkalla ndey mbaay nuyul ma sama yaay gañ siri macha allah mari siñaate aji Fat Fall George bàyyiwuma kenn dangay ngay lim fàtte Madame Do matal aji fat di euh, Cheikh SG qui di encore une fois avec le soutien et la participation de la LTS de la LCS nous avons une conférence le 30 du dimanche 30 novembre à partir de 16 h au centre culturel Blessing Or. ñu restructuré suñu sopp na bi dellu siwaat nag di nuyu nag euh, Pape Diop président di la ziar di la ñaanal yàlla jàmm ak sa njaboot ak sa staff mu doon seen mbokk alaaji Cheikh Lamine seen fii ci LCS ci seen émission Hudan di jëggalu ci serveur bi ni mu doxe tey parce que léeg-léeg ngeen gis appel yi teg loo bare lool mais léeg ci caprice su serveur su nit ñi bare alors muy rejeté ay appel ñoo koy jéggalu di wax sopp na bi jërëjëf ci technique bi régie sama dom ci caméra bi di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh hudal lil muttaqin بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام